salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre seen site info 15 point com mu mel ni nag tey dañu dellusiwaat ci seen émission 15 minutes pour convaincre. dëkk fii sa fi 1948 ba léegi mënuñoo am yoon mënuñoo am courant mënuñoo am ndox suñu jigéen ñaa ngi nii robinet yi la ñuy yéenuy paan ba léegi yoon wi waxu duñu waxam bu tawee sax ñu ngi fee jaar ah. courant bi mi ngi nii tim ñu amuñu courant bu ñuy chargé ay téléphone dem di fa chargé téléphone ah loolu dara mën gënu koo métti maanaam loolu dafa bokk ci dund doomu aadama te mënuñu ko am moo tax ñu am lu métti trop trop trop trop fii bu élection amee Augustin mooy sunu maire Macky Sall mooy sunu président Augustin dafi ñëw chaque élection chaque élection mu ñëw fi man bi avant mu topp pouvoir ba léegi dafiy ñëw bu fi ñëwee li ñuy jàmbat ni moom koy jàmbat muy dina ko saafara mënta am chaque jour chaque jour chaque jour dañuy dig dem yoonam dem yoonam loolu lañ dëkk ak moom waaye na fi noonu ne maanaam suñ ñun ñu ngi nii ay jeunes lañ waa suñu dëkk bi ñoo manko yor suñuy carte ñu ngi suñu poos fi noonu daal li man a wax mooy na moom nax yi daal fa jeex nax moom jeex na suñu carte ñoo ko yor buñ ñëwatee fii di leen xool koo xam ne mënunoo dimbali suñu tawat yi nekke su ko mënul jur sax kenn di fi jaar di di campagne waaw suñu carte moom dootuñ ko maye ci Aliou Faro dañuy dimbali ñu dimbali la mënuñu ko nag ñu téye suñuy carte wasalaam moom boo ko laajee ñëpp moom mën nañ cee tontu kenn ku ne boo ko joxoon kàddu gi mu tontu ci waaye nag dafa fekk ni euh, li naxoon suñuy maam dellu di na di ñuy nax 1948 ba léegi ñun dañ cee yeewu ba kenn mënatuñu cee nax moo waral ñu organiser wu nii beneen bi mooy ñun ñun jeunes yi ñun dëkk bi fexe nañ ba organiser ko def suñu carte muy benn benn ndigal la ñuy xaar te dëkk bi moo ko yor jeunes yi ñoo ko yor kon loolu naxe boobu mënul nekk beneen bi ci des li ñu gën a metti li ñu gën a metti mooy ñun dañuy utiliser à chaque fois dañuy utiliser à chaque fois boo dikkee Kéré Diéndé boo ko xoolee ci titre yi nekk ci Sénégal boo xoolee Kéré Diéndé boo moytuwul nekk fa te ñun ci askan bi lañu bokk loolu moo waral jeunes yi takku loolu mu jeex naxe bi dige bi dafa jeex loolu moom ñun xam na ko te ci la ñuy dox loolu moo waral suñu suñu suñu suñu lii ñuy def nii beneen bi ci des mooy Augustin tin yow la ñuy dénoncé parce que yow yaay suñu maire ñëpp xam nañ ko nangu nañ ko bi nga taxawee fii bëgg ñu dañoo xeex taxaw sa ginnaaw jàppale la ba nga falu mais yaakaar naa ne yow yaa fi diggee woon ni mënu du fi taxaw mukk te courant ñëw fi est yi courant ñëw na yaakaar ni yaakaar naa ni da waxoon ni dina dugal ci biir dëkk kër yi ndox est-ce que sama gars yi ndox dugg na ci kër yi ba léegi est yaakaar naa ne dafa waxoon ni dañuy fay tool yi est-ce que sama gars yi fay nañ tool yi ba léegi kon ñun est-ce que dañoo waxoon ni dañuy jël ci autoroute bi est-ce que jël nañ ñu liggéey ba léegi kon ñun lépp ñun ñoo ko defal suñu bopp kon maire bi ba léegi dañuy nax Augustin dañuy nax dañuy nax loolu moo waral ñu takku ñu defal suñu bopp pour xaar élection yi ñëw képp ku ci ñëw nag dinañ la déglu dinañu xool li ngay wax mais diggé bi dañ cee dañ cee sonn xam naa ni loolu moom organisation bi loolu lañ ko def ba kenn ñemewul wax loo xam ne Kéré Diender naxe yu yàgg ya léegi dafa jeex jeex na takk incha allah. waaw élection yi tax na parce que parce que ñoom ñooñu ko ñu ci yare mooy mooy lan ñoom lu lu jóg dañ koy politiser. kenn ku ne xam na ni ñun li ñu metti du élection yi la ñu metti mais ci élection yi rek nga mën a jaar pour am li nga bëgg moo waral ñun suñu xalaat yi mu dëppoon ni fokk ñu dox doxu ñaxtu pour média bi jël ko euh, politique yi déglu ko xam ne lii moo ñu metti waaye ñoom ñu ko dundee parce que lu ñuy def bu ñu lay may saako ceeb sax foog foog ñu woo ko filmer ko pour ñu mën koo dégg kenn defatul ngir yàlla dañ koy def lépp pour politique loolu moo waral ñun tamit bu ñuy jóg pour élection yi dañuy xaar ba élection yi des fukki fan ak juróom pour lu ñu mën a wax mu mën a jàll ci média yi pour ñu mën ko dégg parce que diggante bii rek lañuy am temps askan bi mais diggante bii tamit askan bi ci lañuy am temps ñaxtu seen i soxla. waaw ah ah ah mais tamit wax loo xamante ni wax leen ko defal après xam nañ ne élection maire yi léegi mu ñëw euh, bu présidentielle yi jàllee lu néew moo ciy desaat mu ñëw yéen tamit bu fekkente ni tamit yooyu jub si na ñu continuer di leen wax loolu lan ngeen xalaat pour def ko yéen waaw dama ne dama ne dama ne olof olof nee na ndobin bu rayee sa maam boo gisee lu ñuul daw te jamono bi ci daw la ñu nekk parce que dañoo gis lu ñuul moo waral ni lu ñu gis loo xam ne politique am na ca ñu cay déglu du ñu amate lu ñuy dégg lu ñuy gis lay doon moo tax jamono bi mooy dëkk bi yëpp takku nañu xam ne duñu déglu benn politicien fii ak defoo li ñu bëgg muy élection yi ñu ñëw ni mooy ñun ñi dëkk bi dañ ñuy defal ba pare ñu soog a def noom lu ñu bëgg mais ay waxi kese moom mënatuñu ci dégg te parce que dañ cee maar. Ah, mais ki nga ni toogagul yaakaar ne ah, dama yaakaar ni Augustin cinq ans lañ ko fal. yaakaar naa ni après rek cinq dugg na Macky Sall sept ans lañ ko fal te sept ans yëpp def fi dara Augustin cinquant ans yëpp def ci dara kon ñoom ñaar ñëpp toog nañu bu fekkoon ne dañuy laaj seen premier mandat jàmbat bii du am dañoo toppoon seen i ginnaaw cinq déglu nañ leen def ñu dara kii sept déglu nañ ko def ñu dara kon ñoom mënatuñ ñoo wax lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñuy def ñu gis ko rek la ñu mën a la ñu mën a topp seen ginnaaw maa ngi jigéen ñi xanaa sonn rek <coughs> ndax jigéen joo ci gis fi ne fajar lay jóg ma nga ca root ma ma nga ca aw yoonu marché ba ma ngay lijjanti xalem ñi jàngi sonn nañu ñun dañoo foog ni sax ñun dañoo bokkatul ci réew mi ñun dañoo foog ni ñun jigéeni Kaïré Jandeer ak Touba Samb ñun dañoo bokkul ci réew mi ndax boo seetee dëkk yi ñu wër yëpp moo am courant ba mu des ñeenti dëkk muy Touba Samb Kaïré Jandeer Kër Baara ak Kër Baara Pël yooyu war naa mën nekk ñu am courant ca léegi ñoom lu ñu taxaw ñu sol sunu dàll taxaw ca ñun nag dañoo sonn ci naxe bi naxe bi ci boppam moom lañ sonn ndax ñun dañ ñoo def ko mbubb mu ñuy sol suñu amee seen soxla ñëw wikki ko sol suñu paree wikkaat seen bubu fàtte ñu ñu nag sonn nañu ndax fim ne booy dem kees da ngay dox a dox ba sonn su fekkee da nga am ku feebar sareet yi ngay jël di leen yóbbu bëgg koo booleeg sam root dégg nga bëgg koo boole xale yi jàngi bu xale yi jàngee sa xel du dal ñoo nga jàngi ji ba sànge bu ñuy ñëw dañ leen di kar dañuy yuuxu ci yoon wi lu ñu di ko def ñun waa Kairé Diender jigéeni Kairé Diender sonn nañu sonn nañu ñun bu ñu déggee soosoo di wax ci télé bi sax amuñu fuñ ko seetaane ba ñun soos lañ ko tegoon bu ñu nee sesoo commencé na sunu xale yi raxasu sukk foog mi soos la nekkete soosoo nit la waaw ñun sonn nañu amuñu fu ñu sarse portable amuñu fu ñu seetaane tele waaw ñu bëggoon ku ñu dimbali nag ndimbal sax amut ci moom dañuy def rek ñu def bu ñu deful lu ñu def waaw <laughs> lan am loo xamante ni xanaa ñu dimbali ñu rek ci courant bi mu ñëw ak yoon wi ak ndox mi ndax jigéen ñi mën a am jot benn jigéen amu fi jot ndax liggéey bu sew boobu ci kër gi loolu rek lañ leen di ñaan ñu dimbali ñu ndax sunu xale yi bu ñu xëyee dem kees kenn ku ci ne sa jaboot sa xel du dal ndax yoon wi dina lañ ci def barki démb rek la ñuy agressé fii borom jakkataay dañuy kar sunu xale yi di leen agressé bu bu ñu xisee julli timis kenn ku ne yaa ngi taxaw di séentu sa doom ba xam lu ko téye ci àll bi sonn nañu nelawuñu bëccëg nelawuñu guddi ndax métitu dëkk bi ca ñun rek na ñoo ko fi dese waaw dama wax ni mooy ñun euh, ndaw ñi ñun ñoo war a taxaw am fulla am fayda pour lan Augustin Tine parce que ñun dañoo war a am sens boo xam ni dañ ko war a defal gis nga rang bii dañoo pousseeral te fii la yem après pont bii la yem Augustin Tine war a jël euh, rang-rang bi continuer ko ba biir Thiès waxuma la sax mais dañ nax li ñu naxee dañoo jël suñuy tool ni dañ ñuy fay bu ñu wax bu ñu demee ci Augustin ogi Augustin Tine yow laay waxal yow maire bi yow laay waxal bu ñu waxee da dangaa waxoon ne dañ ñuy fay suñuy tool ñun keer a jëndee ñun Touba Sam parce que as yow yaa ñu yilif yow loolu nga waxoon te yow gisuma nga def ci dara yow Augustin Tine yow lay waxal beneen bi ci des mooy da ngaa waxoon ne dañuy jël ci autoroute bi ñun ndaw ñi ñoo ngi nii taxawaalu rek la def ba léegi defoo ko parce que yow yaa ñu yilif yow da waxoon ne doo ñëw mukk te dugaloo ndox mi ci biir kër yi dégg naa nag am na ay kayit yoo fi dugal wóoru ma mais daal li ma ci gën a li ma ci gën a metti mooy lépp dañ koy naxe lépp keere jëndee moom lépp dañ koy naxe te loolu moom incha allah am nañ ci fayda am nañ ci fulla ogi seetin yow yaa ñu xañ terrain football parce que fii ci àll bi ci autoroute bi ci lan daan football te jël nga ko ba léegi wax gëstu woo ñu ñun ñun ndaw yi ndaw yi loolu dañoo bëgg nga taxaw ci daara jaa ngi nii defoo ci dara jumaa jaa ngi nii sa moroomu góor moo ci moo ko taxawal ba léegi yow ogi seetin sa benn dërëm dugg ci waaw mais pourquoi kon ñun dañoo bokkul ci yow wala yow dañoo bokk ci yow wala ñun dañuy utiliser wala nu mu demee noonu mais it eh, gisee dama bëgg nga xam ne ñun kere Diender taxaw nañu bokk doole bokk fulla te suñuy carte fii ak defoo li nga waxoon parce que yaa ko fi diggee bi nga koy digal ne kenn saxalu la lem yow Augustin Tine yow yaa ko wax yow yaa wax sa askan nga bëgg sa askan yow yaa ko wax kon dañoo bëgg boo ñëwaatee ci élection yi boo gestoo nga xool nga conscience sa bopp xool lan ndax lan lan nga def Kéré jëndeer lan nga def Touba Samb xanaa kay damaa yaakaar ne da nga leen a xañ waaye defaloo leen yow gi seenti damaa yaakaar ne Touba Samb keere Diender danga nga leen a xañ waaye loo leen defal boo demee na nga xalaat loolu bu baax xam ne yow nan nga fi ñëwee tal li nga waxoon defoo ko xam naa loolu moo nekkoon samay kàddu yu ci ngeen baal ñu àq salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen ay suivre info 15 point com ñu ngi leen di jaajëfal euh, di ñu nekkoon tey fii ci Kaïré Diander doon def seen émission 15 minutes pour convaincre ñu leen di jox dig daje beneen dimanche ak beneen invité incha allah.